summa ahli walwalad wa maskani lakka wadiyatun abad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi di nuyu mbokki taalibe yi gidal nuyoo bi suñu xalif général des mourides sëñ Mouhamadul Muntaxa di ñaan suñu boroom may ko wér ak kattan ak fan wu gudd lool ba li mu bëgg liggéey Seexul Xaddim suñu boroom àggale ko fa di siyaare sëñ Mbas lu Mbàkke ak mboolem magitaale yi ñu fekk muy sëñ Kande Masire ak sëñ Fallou Gala Silla dikk rek di présente délégation bi nga xamante ni bi tey jii moo teew ci kanamu sëñ Basiru Mbàkke ngir ànd ak ñoom ab liggéey boo xam ne dafa jëm rek ci jëfe ndigalal sëñ Mouhamadou Mountakha ci kaw bu mu santaanee bis boo xamante ne bii dafa jëm ci ñàngum xasida muy benn fan wala ñaari fan ci xaram di mercredi 11 mars bi ñu jëm mu waxoon sëñ Youssou Diop ne ko bis boobu dafa bëgg 7 heures du matin ba tàkkusaan jumaa ji ak li ko wër ak mboolem kër yi wër jumaa ji ba daaru minam ñu jàng xasida seen Tuubaa yi fas ci fas fas boo xamante ni bii lam ci yëg ba mu tax mu santaane ko moom moo ko xam waaye lam ci gën a la ci gën néew ci la mu wax ne mas na ko ci yóbbaale mooy mbas mi jóge fi ak nawet bu barkeel kon ñoo ñaan suñu borom àggaluñ ci bis bi te lam ci sant lépp séenu ko ci suñu borom dafa ko ci lu kaw njortam bis boobu nag bis la boo xamante ne bii dafa am fu sëriñ bi teg am ci bëgg ñu bëgg mboolem taalibe yi jege ko noonu du bisub xumbeel du bisub mumbaay du bisub rendez boo xam ne dañoo ko gisante sëñ bi woote ñu pour ñu gisante déedéet xas di sëñ Tuubaa la bëgg ko jàng ci njàng mu sell ci durus di ko njàng njàng mu sell ci mawlut di ko njàng njàng mu sell ci rajas bañ na ko ba àgg na ci wax ci ne kon bu la muy jàng bu mu bokk ak moroom ji muy jàng kon bëgg na njàng mi yaatu ci xasida yépp loolu moo tax banqaas bi saytu wàllum njàng mi nosee nañ ko noo xamante ne bii fas nañ yéene kuréel bu ne la muy jàng bu bokk ak moroom ji muy jàng moo si yuus ne ko dangay dem ba si am satu xame ko ne ko bis bii kat dama ko woote waaye la cee def moom laa koy defal kon ànd ak moom liggéey boobu te ngeen taxawal ko kon loolu mu war a jotaay bi gannaaw bis la boo xamante ni bi ñun ñëpp yéen ji benn la pas-pas bi benn la te li mu laaj ci liy tax ñu jëfe ndigal li bi ñu ko xaymaa ay commission commission la kon commission administration daje nañ mooy ji nga xamante ni waxtu wu ne ñu ngi nas ak nocc liy tax ñu lëkkaloo ba lépp luñ ci bëgg ci organisation mu saafaraw ñu tuddee ko comité pilotage ndax comité directeur bi ñoom bëriwoon ñooy kilifa yi nga xamante ne bii ci leen ndigal li wàcc ngir comité bi jëfe ko muy sëñ Amsatou ak sëñ Youssou bu dee commission yi nag tey jii commission bi nga xamante ne bii moom moo tax ñu daje fii mooy commission bi nga xamante ne bii ñooy saytu wàllu karaange yi nga xamante ne bii mooy tax nit ñi buñ dikkee ba nu ñuy dellusee du am jafe-jafe ci wàllu ordre te xam ne lislaam dafa bëgg lu rafet bëgg lu tege ci yoon bëgg lu xalaf xalafu bëggul lu tasaaroo dafa bëgg loo xam lu ci ne boo koy def teg ko ci ak ndigal ak yoon woo xamante ni bi bu sottee lépp doon ndam kon loolu moom fi dajale ngir waxtaan ak suñu jëmm yi nga xamante ni bi yàlla def na seenu mat dafa féetewoo foofa te ni nga defee ak am ñoo xam ne ñoo dajeeg ñooy togg am ñoo xam ne ñoo dajeeg ñooy jàng am ñoo xam ñoo dajeeg ñuy joxe ndox am ñoo xam ne ñoo dajeeg waa santé ak waa ak waa hygiène am ñoo xam ne ñoo dajanteeg ñi xam ñooy protocole ak waa communication kon day mel yooyu yëpp day ay bànqaas yoo xam ne bu ci ne ñoo ngi dajaloo ngir saytu ngir liñ bëgg ci ndigal li ñu jëf ci jëfe ko kon li daal mooy kàddu yi nga xamante ne bii moo taxoon ñu ñëw keroog dem seeti sëñ Basiiru gannaaw bañ demee si am satu mu sëñ Abdu Laat yëgal ko suñu yéene ci ànd ak moom liggéey bi ak di ko taalas loo pour mu ànd ñu ci liggéey bi mu joxoon ñu ndigal ne lañ seeti sëñ Basiiru Mbàkke ngir ñu ànd ak ñoom liggéey bi nga xamante ne bi moom la sëñ bi mun daxaa teg ci loxo suñu am satu ak suñu yuusu ngir bis booba buñ ci àgg jàmm lépp luy tax ndigal ñu mën koo jëfe ñu am ci ndamal sëñ Tuubaa kon li daal moo ñu yëkkati woon sëñ Basiru jàppoon bis bi ñu war a dajeek ñoom ma ànd ak ñi nga xamante ne bi mooy wàkkat suñu am satu yi di suñ Modou Bey suñu Aboo Jeng ak suñu Mambay Gey ak comité pilotage bi ak ñi nga xam ne ci utarxe ñoo yor wàllu banqage sécurité bi mooy suñu Aliou Ngey ñu Yaquba Sène ak suñu Omar Diouf ñu daal ñoo teewoon ngir tey ànd ak suñu jëwriñ yi ñu xoolandoo sottante xalaat ngir liñ ci bëgg mu am ñu daal mooy liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu ngi nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom lañu bokkal jataay bi. ginnaaw bi ñu ñaanalee Cheikh Mahamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu naalal islam yépp mu àggale ko ànd ko njabootu Serigne Touba gi. di nuyu sëriñ Bassirou mbakki moom Serigne Cheikh Thioro mii nu feggool ak Serigne Fallou Fall moom sëñ Aliou Fall Mbawor ak Cheikh Mamadou Fadal sëñ Ahmadou ñu di leen nuyu ci jataay bi jataay biit it kuréel bii nu ngeen dajeel tey ngir nu waxtaane li jëm ci wàccaayu bis bi du kuréelu xuddaamul xadim di kuréel boo xam ne Serigne Saliou Mbacké moo joxoon digal doomam muy sëriñ Xamsatu mu Cheikh Abdou ngir lu jëm ci sàmm ndonol sëriñ bi lépp sëriñ bi sàmm ko ak saytu ko liggéey boobee sëriñ Xamsatu yor ko lu yàgg lu yaatu muy loo xam ne jëmmi sëriñ bi moo ca joxe ndigal ànd ca ak moom waaye doxinu réew mi ni baaxoo doxeet loola it am ca ndigalul lu wone ne kuréel bii liñ koy saytuloo war na koo saytu Serigne xam Tuuti jëlaat liggéey boobu teg ko ci loxo doomam jii di Cheikh Abdoul Bachir mi xalifa Serigne Cheikh Thioro moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Khadim Rasoul ngir mu taxawul ko ko muy kuréel boo xam ne it moom it dafa tënk lu bari ndax ay commission yu baree bari la waaye liggéey bii nu ñëw ngir bëgg ci ànd ak yéen dafa am lu mu laaj ndax bu dee commission bi nekk ci culturel kon la war ci wàllu njàng ma ak saytu ba ak taxawu ko ànd ak nin ko bokk yëpp santaane waaye wàllu sécurité gis ngeen sëñ Modou Diaw Diaw bee ngi nii te loolu bokk ci tabbi ci kuréelu xuddaam ngir lépp noo xam ne li tax sëriñ bi wax ñu daje noo leen ko bëggee rek nu mën ko àndee ak yéen ba li sëriñ bi bëgg amee ko ni mu bëgg ni ko sëriñ bi bëggee nu amee moo tax Cheikh Abdoul Bachir wax ne nañ ñëw àndandoo waxtaan ceeg yéen wane ne kat noo ngi ànd ak yéen ci di leen wettali ak di leen gunge ci di leen saytu la loolu ndax koo xam ne dafa jot ndigalul saytu liy ndonol sëriñ bi defe naa bu sëriñ bi joxee ndigalit luy tax ndigal loola mën a am day waral yitte ja gën a kawe yitte ja gën a taxaw te defe naa kuréel yi nekk ci dëkk bi yëpp kenn ku ci nekk ñëw na ànd ak yéen liggéey bi ndax day ndigalu Serigne Touba ndigal lu bàyyi ko Cheikh Abdoul Mountakha mi nga xam ne mooy Serigne Touba kon lépp luy tax mu nosu ba lépp mën a sottal moo tax loolu mën a am kon nii ma la ko waxee ni la yëf yi taxawee euh, kuréel la boo xam ne tënk na kuréel yu baree bari ci biir nga xam ne lu mbooloo di woo rek kuréel bi am na ko ci ci ci wet gu nekk bàngaas bu ci nekk ak la ca war kon defe naa ku mbooloo it defe naa laaj na li ñuy wax ak saytu te ginnaaw sëñ bi dénk na leen kuréelu buy saytu moomeelu sëriñ bi luy saytu waru may dëkk bi saytu lépp defe naa ñoom moom comme aw gan a ngi ñëw ci dëkk bi wala sëñ bi am na lu mu santaanee ngir ñu war koo taxaw muy kuréeli xaside yi nga xam ne dañoo war a ñëw ñuy yëkkati ak ñuy rajo saka def lu ne defe naa lu ko saytu ba tax la ca bokkul du ca tabbi ak lu bëgg a doxee nu wuuteeg ni ko sëñ bi bëggee nu mën koo taxaw ba loola sotti kon mooy taxawaayu xuddaam moom ndax xuddaam moom lépp luy tax ndigalu sëriñ bi am rek loola moom ca la nekk kon moo tax Cheikh ba siire a ngi ni euh, di leen sant nag bu baax a baax ci boole gi ci liggéey bi ndax sëriñ Touba moom liñ koy liggéeyal taalibe yëpp ko bokk taalibe yëpp ko moom di leen ci ñaanal it yàlla sunu borom ndax ndigal li bi mu wàccee ci sëriñ Yuusu dem ci sëriñ Hamzatu muy ndigal loo xam ne képp ku dib taalibe ñëpp a ko bokk waaye nag yàlla na yàlla may leen kattan ba ni ko sëñ bi bëggee nu amee ko ni ndax bu ko sëñ bi amee ni mu ko bëggee rek noonu liñ bëgg lépp danañ ko am te ab taalibe bu nekk nag du li nga bëgg moo moo moo war a dem waaye li sëñ bi bëgg rek moo war a am kon nag nañ déglu ndigal yi yin digle ak niñ ko santaanee fu cib taalibe war a tàmbalee mu xam ko fu cib taalibe war a yem mu xam ne fii la ca yem nga xam ne du am ak ëppal waaye du am ak yéesal kon ñu déglu Cheikh Abdoul Bachir mi nga xam ne moom la Cheikh Hamzatou Mbacké jox kuréel bii di xudaamul xadim tam jiite ko aouzu billahi min alcheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ak Cheikh Xadim mbokki julli di mbokki taalibe yi waa kër Cheikhul Xadim ñoo ngi di leen nuyu nuyu bu sell te mooy asalaamualeykum wa rahmatullah di tàmbalee ci sunu Euh, jëwrin sunu kilifa ki fi nekkal cheikhul xadim cheikh Mouhamadul Muntaka di ñaan suñ borom may ko ak wér tam yàgg lool naal yi ak liggéey bi yëpp mu yegg incha allah ak euh, di ñaanal itam mboolem njabootu ku cheikhul xadim gi yëpp di nuyu sunu jëwrin sëriñ Hamzatu Mbakke moom cheikh Abdul Ahad ci pëstéefam ci taxawaayam ak euh, li nga xamee ni moom la ko Cheikh mun Muntaqa euh, jox ak ay waajuram ya ko fa jiitu woon ci liggéey ak taxawaay bu am solo bi nga xam mi ngi koy taxaw ci yoon wi sàmm lépp loo xamee ni mooy ndonal Cheikhul Xadim mu taxaw ci taxawaay bu am solo boo xamee ni euh, ñëpp ñu ngi koy rafetlu di ko ñaanal suñ borom may ko fan gudd lool ànd ko wér waaye di wàcc itam ñëw ci sëriñ Hamzatu Mbakke moom Cheikh Chouaïbou ci euh, euh, liggéey bu am solo bii nga xamee ni mm, Cheikh Mouhamadul Muntaqa euh, dénk na ko ko lu jëm ci wàllu xasida lu jëm ci wàllu njàng mi te loolu mooy patrimoine bi nga xamee ni mooy bi gën a rëy ci yoonu murit ndax ñun amuñu lu xasida yi Euh, buñ ko euh, jàngut te ab baat la rek boo xamee ni sax faaw dañ koy jàng waaye buñ ko jàngut duñ gis kenn koy jàng kon nag ñun moom lañ am euh, te sëriñ bi soññ nañu ci alquranul karim képp koo xam aju na ci moom na jël alquranul karim ji jiital ko ci lépp waaye jël xasida yi itam ci yim tagge yàlla waaye yim leerale itam lenn ci ayat alquraniya yi ak yi nga xamee ni mi ngi ciy tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñal ci yu baree bari te muy eh, eh, ay ay mbir ak ay eh, secret yoo xamee ni ci li ci nekk ku ko xamoon mm, da nga dëkke nekk ci xasida yi waaye itam di sañ sëñ Hamza kon moom sëñ Chouaïbou ak mboolem ñi nga xamee ni ñoo ko représenté ñi mu àndal ñëpp ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci li nga xamee ni mooy ndigalul Cheikhul Khadim di ndigalul Cheikh Mahamadul Muntaka waaye itam di sant ak ñaanal Euh, kuréel gi euh, euh, gi kuréel di bu tarxiya ci njiital sëriñ Yuusuf waaye di fàttaliku jëwriñ ju mag jooji nga xam ne sëriñ aatu di ko ñaanal suñ borom yokk ak leer te lim liggéey suñ ci waay yëpp mu gis lu kawe njortam lool incha allah ci barke Cheikhul Khadim waaye di ñaanal ñi nga xamee ni ñoo ko fi wuutu suñ borom dëgëral leen bañ yeggale liggéey bi yëpp ci barkeb Cheikhul Khadim di rafetlu doxin ak taxawaay bi daanaka foofu damay wax ni rek ne mbir mi mën mm, na ni nosu na ndax eh, li arab bi wax naan axada alqawsu bariha maanaam eh, ki ko mën lañ ko jox waaye surtout ñu eh, ci ki ñu neex rek ñu jox ko ko kon loolu lu am solo la kon di rafetlu bu baax a baax ci jataay bi moo tax ñoom gis nga seenu yaatal ndax loo xam ne ko bokk amul kenn ku ko war a mën a xatal te ñoom xatalun dara yaatal nañ ci mboolem fépp foo xamee ni war nañ faa dem euh, ci jàpp naa ne dem nañ fa ngir xam ne yëfi Sëñ Tuubaa euh, daa yaatu te xéwal lépp xéw la daa nafañ balaa dara boo xam ne ñëpp mën na caa jariñu kon nag euh, ci lañ ñëwoon ci biir loolu itam nag daal di ñëw consulté si kuréel bi nga xamee ni mooy Xuddaamul Xadiim bi nga xam day dox ci lépp loo xamee ni day ma ak lépp loo xam day ndonal Cheikhul Xadiim Euh, kuréel googu nag day kuréel euh, goo xamee ni buñ leen woowee ci lii danañ ci sawar lool même buñ leen woowut itam seen liggéey la dañ cee war a ñëw taxaw surtout lu jëm ci wàllu euh, ci sécurité ak lépp loo xamee day tax nit ki am ak dal ak jàmm ci sëñ Gana ni mu koy junj léegi kuréel la boo xamee ni bari na ay ay lijaan bari na ay secteurs yoo xam ne ñu ngi ci waaye benn bu nekk lam war a taxaw incha allah dana ko taxaw ba kon Euh, ci ñoo ngi soññ mbooleem ñëpp ñoo xamee ni ñi ngi bàyyi xel xuddaamul xaddim wala bokk ci biir xuddaamul xaddim wala aw doxinam neex leen euh, ci kat am nañ ndigal ci fas yéene taxaw ànd ak euh, ci ndigal lii nga xamee ni Cheikh Mahamadul Muntaqa da koo joxe ngir ñu war a jàng xasiida ci sëriñ Ahmadou sàmm nag leeral na ko njàng mi kon njàng mu set lay doon moo xamee ni daa mel sëñ Mountakha mi ngi ñuy leeralal ni ñu war a jàngi xasida ak ni ñu war a gën a mën a fonk xasida ndax itam euh, dañuy dégg sëñ bi ne jàng alquran ba mu jeex te amatuk settantal jàng benn aaya rek te settantal ko moo gën a kawe ah, kon nag mel na ni euh, jëmmi xasida yi suñ njëriñal tey ak ëllëg da cee nekk waaye buñ ko jàngee te fonk ko te bañ ko booleeg lenn tam sell euh, fuñ bëgg a yegg rek danañ fa yegg ndax Euh, euh, euh, jëmm sell gi day am différence ak ñàkk sell gi ndax nit dana dana jàng benn bayit man caa saafara lu nekk keneen ñëw jàng même bayit boobu te mu te du mën a saafara loolu ci jëm yee bokkut wala boog taxawaay yee bokkut kon nag nañ gën a sellal bu baax a baax comme ci ci li nga xam ne bëgg nañ ko noonu Euh, bu mu am coow bu mu am benn euh, rumandaat wala lenn lépp nañ ko teg ci njàng njàng mu set njàng mu sell comme ni nga xamee ni noonu la ko sëriñ bi bëggee kon nag sëñ Abdourahim Fall mi nga xamee ni moom moo jiitee ci xuddaamul xadim sécurité ànd ak sëriñ mut jaw ak ñi nga xamee ni ñoom la àndal euh, jox nañ leen ndigal ci kanamu kuréel yi nga xamee ni mooy isbu tarxiya ak njabootu sëñ Hamza gi nañu dem ci ñoom ànd ak ñoom lépp loo xamee ni bëgg nañ ko seenub taxawaay fu ñu leen yem loo itam na ngeen yem foofa lépp lu leen def loo def leen loolu ànd ko dal ànd ko yar eh, ci képp koo xamee ni mi ngi Touba na nekk ci biir Touba képp koo xam itam nekk na beneen dëkk yi itam bu fekkee dañu bëgg ñu yem foofu itam eh, am nañ ndigal te yem ca kuréel yooyu itam saydu ko comme nañ ko bëggee eh, Euh, lépp daal tënku ci ndigal euh, ci kon xam naa ci li ci des sëñ Modou Diop kon bu fekkee sëñ Abdourahim moom xëy na daa am gànt ba ñëwut euh, ci na leerul loolu pour dikk ko consulter ñi incha allah pour ànd ñoom ci liggéey bi kon daal ci ñoo ngi jégalu ci kàddu gi loo xam ne ni xaj bañ a guddal la tax di jégalu bu baax a baax waaleykum salaam wa rahmatullah wa hakaza dunyaaya ma uxraaya fa fihima an nisri fi rasaya wasrif xasaba neeri an jumlati man bi yatahallahu min abnaa'i zaman wa jumlati l ixwaani min axaaribi fi tiini aw fi diini wal ajaanibi waliyakun hisnan wa daban ya samad tawallani wala takilni li ahad warham jamia almuslimina abada wa salliyan wa salliman sarmada ala muhammadin وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للسحاب عن آله وهب لي الإجابة دي برم تبا إلى الكتاب والحديث صرفا قلبي وقالبي بالوجه المصطفى